mais sëñ bi dañuy wax ci wàllu football coow équipe nationale dafa ne kur ma naar naar yaa ngi lan ngay expliquer sénégalais li nga waxoon lay lay dugg dañu dem ci coupe d'Afrique ma dem ba deuxième phase bi ma dégg ay nit ñu génn ci internet ñu wax ñu ne Sénégal du jël coupe ñi ñu ne Sénégal du egg demi-finale ñu wax lu ñu bëri wax mais man ñooñu ñu woon mu nekk ñun sama objectif li nekkoon sama objectif moo nekkoon damay seetaan internet léeg-léeg ma dégg ñeg yi ñu ñuy wax ñu ne Sénégal yéen a gën équipe ci àddina mais du gën mës a jël dara wax boobu nag dafa ma daan laal ba ci sama biir xol parce que dafa ma daan sotloo moo sama benn xarit ma ne ko ren de bëgg naa dem Cameroun mu ma fay def ma ko final bi la bëgg dem mu ma final gu ñëw final do xaar bañu jënd ci liñ nekk ba pare ma ko si dinañ finalu incha allah mais bëgg na ren xol lu mu musul def ci sama dund man musuma sétane équipe nationale stade ma ko lu mu musul def ci sama dund moy dina def listikhar xol lan moy gàllankooru équipe nationale la nekk gàllankoor bi dana taxaw ci mu dëñ incha allah te bu deñé dina dem Cameroun jëli ji ndam li ci katini yàlla ñewat ak mom Sénégal limay wax nak ñima xam-xam nañ ko parce que defna statut avant may dem bi ma demee statut na vocal 16 minutes. vocal bi génne naa ko avant final bi. waaw wax naa liñ ci war a def. wax naa liñ def ci liggéey liggéey gàllankoor yi ñu ko def parce que gàllankoor yi gàllankoor yu bokkoon na ci. am na koo xam ne këram la jël ñun kër gi mu def sax kër ñu ko defee sax xam nañ ko loolu gën a dee kër gi ko defee sax xam nañ ko ñi ko def xam nañ leen. sëriñ yi ñu jëloon am na ci koo xam ne bi saw la dëkk xam nañ ko mosuñ ko gis nag mais xam nañ ko ci baatin Égypte nee naa la jëloon na juróom-ñeenti sëriñ parce que alxuraanil karim juróom-ñeenti sëriñ neuf yoo xam ne bañ leen di jël seen objectif nekkuloon pour ñu dajeek Sénégal mais dañ leen jël ci commencement kan bi benn courtier moo leen jël fi Sénégal. tey courtier ñu yóbbu leen Égypte euh, euh, baal courtier ñi ngi ci kër yi. ngi ci oto yi ñi ngi ci oto yi. ñi ngi ci ci sëriñu courtier yaa ngi bëgg yóbbu àllaaxira. ah. biñ leen jële dañ leen yóbbu Égypte yéegal leen ci benn hôtel boo xam ne commencement Coupe d'Afrique ba ba fi ñuy ñoo ñu mosuñ teg seen tànk ci suuf lañ soxla yëpp dañ leen koy yóbbul ci kaw. sëriñ yooyu ay sénégalais lañ te ñu am baatin lañu ñu ñu jëloon. ñu am baatin lañ kenn xamu leen fii sax Sénégal ay doomu sénégalais lañ kenn xamu leen waaw parce que Sénégal jëluñ leen ñu jël leen léegi nag ñooñu dañoo liggéeyal Égypte biñ ñëwee ba ñun ñu def li si xaar xool nan la ñuy def pour jël ko bi ñu gis ne loolu Égypte am na ko te ñun Égypte lañ war a dajal benn beneen bi mooy ñu gis ne Sénégal jël na ay sëriñ yoo xam ne fay na leen am na ñu ci am baatin mais am na ñoo xam ne ñaanuñ sax ba naan waxantuma nag day am mais jël nañ leen am na ñu am am na ñuy ñaan ñu gis loolu. waaye ñu ne ñu li tax Sénégal mënul jël ndam mooy dafa am liggéey yoo xam ne def nañ ko am na ci boo xam ne beneen nag bu ñuul kooku lañ jël ñu rendi ko teqale ko ay cër suul ko ci stade bu ndaw oto bañ duggoon keroog xam naa oto bi ni mu mel ñaata nit ñoo àndoon oto bi xam naa ko sëriñ bi nga xam ne moo ko jiite woon Bissau Guinéen la xam naa ko ki nga xam ne moo leen fay pour ñu def ko xam naa ko biñ defee loolu. fay doomu sénégalais la. ci seen biir la nekk biñ defee loolu ba pare ñu ne. naka lañuy def ba toctal liggéey bi ñu ne des na de du loolu kase lan lañ defat ñu ne jël nañ ay nit ñu tëj leen ñetti fan ci kër goo xam ne kenn ci ñu nekk ci équipe groupe boobu moo ko moom kër ga àggul ñetti fan lañ def ci biir luñ fa doon def ñu ne dañ fa doon jàng tabat yadda ak yu pour lan ab lim lañ fa doon jàng pour que Sénégal lu mus a jël ndam lan mooy objectif loolu ñu ne pour que Augustin Senghor du mus a am résultat ci lañ ko dénk ndax mu mën a wàcc ñeneen yéeg mais itam Aliou Cissé du am résultat pour que mu mën wàcc ñeneen yéeg loolu moo nekkoon objectif loolu mën naa ko leeral bi ma xamee loolu yàlla xamal ma ne ma pour ñu tojtal gàllankoor yooyu il faut que ñu def lu fouf ñoom la ñu def lan lañ def dañu ray nak bu ñuul bokku na ci lan moy sarax bi ñu ne sarax bi nak lay doon comme lañ def ñom mais ak gëléem mais nak bi ngeen di def da ngeen ko rey ci stade boole ko gëléem jël yap nak bi tek ci suuf jël yap gëléem bi tek ci kaw ngeen sam ko limu ñi nga xamne ñoo composer équipe nationale kenn ku ci nek nga tuddee ko benn sam ci jour yi mais itam kenn ku ci tek nga teg ci mayom bokoy koy bu ko defee yàpp gëlëm yi na muy tegoo ci kawam na gëlëm ëppee daraja nag noonu la Sénégal di gën a fësee Égypte ci final bi loolu lañ ma ko waxee wallahi la azim bu ngeen defee sarax boobu ngeen boole ko fukki kaamil ak ñaar ngeen wàcce ko amul kenn ci kaw suuf incha allah ci li yàlla bind kuy tere Sénégal jënd ndam li moo jël ojo bi am ay autorité yu ma ko jox yoo xam ne xam naa leen ñenn ñi déglu ko mu compliqué ci ñoom parce que jege woon na te xamuñ xam nañ ne buñ ko joxee ñi ñu ko war a jox aussi dañ wóolu. dañ naan kii dafay ut dara. dóorkat lañ waaw léegi xam na koo xam ne moom xam nañ ko jàppale nañ ko ba moom moo nekk président conseil départemental ci fa mu nekk moom kooku moo jël xaalisam mu def ko du ma wax turam ba mu ko defee man yàlla dogal na ñu may ma visa Cameroun ambassade bi moom recevoir en personne ci biir bureau ñu defal ma sama visa ci biir bureau jox ma ma jël sama billet dem Cameroun ñu def li ñuy def yàlla. waaw Cameroun nga def ngeen defee woon sarax yooyu. déedéet fii lañ ko defee biir Sénégal gii lañ ko defee. mais sa demu Cameroun lu ko waral. waaw parce que dafa am lu ma bëggoon superviser sama bopp. Mhm. jour final bi nga dem. jour man jour dama dem bi ñu ne suba la final bi laa dem egsi ci final bi seetaan final bi jëlaat vol bi ci jour bi ñibbi si ci jour bi. man noonu laa def. waaw noonu laa def waaye waaye nag waaye nag tekkiwul ne. yaa jëli woon coupe bi waaw loolu tekkiwul loolu de dama wax rek li xew. dama wax li xew waaw dama wax li xew léegi nag. mais yow lépp sëñ bi dogguma la foofu. rakk nga baal ma fii. kon dafa wane ni. li doon xeex Sénégal Sénégal la nekk. mais bien sûr ba léegi. te sénégalais la. ba léegi ay sénégalais la nga ñu koy wax ay sénégalais lañ ay sénégalais lañ sëñ bi li fi xeex sénégalais bari na de loolu tax demuñu de li fi xeex sénégalais bari na de man mii rek dañ may xeex. man ci xeex mu lañ dëkk di tam man ñi may def ñëpp xam naa leen loolu gën a bon ñi may def man xam naa leen liñ may def xam naa ko liñ may def xam naa su ma tuddoon tur da ngeen naan non non loolu mënul nekk du ma ko def mais su ma ko tudd da ngeen naan mënul nekk. waaw léegi sëñ bi te ñi may def man xam naa leen. waaw léegi sëñ bi. Mhm. ñu ngi jëm ci coupe du monde. Sénégal ñëpp di xaar. Mhm. la république ba ci ministre des waaw li may digle. ci waaw li may digle mooy ñi yàlla may xam-xam te mu wér na ne ñoom am nañ xam-xam buñ xar ku leen woo ñoom nañ def li wajillaahi al karim maanaam li ñuy tuddee patriotisme su fekkee da nga bëgg sa réew gis nga militaires yi seen bakkan la ñuy pour ñun ñu mën a dund ci suñ lekk suñ ceebu jën suñ kër fii ñoom ñu nekk Casamance di di joxe seen bakkan ñun ñuy lekk suñ ceebu jën suñ kër ñoom ñu ñuy mënal loolu pour suñu réew ñu dégg ko fu ne ci jàmm ñu nit war nañu bu suñu réew demee foofu teew fa ñu def lu ne pour que suñu réew ñu dégg ko ci ndam yu rëy yi suñu ko yàlla mayee su neen da ko jël def ko commerce su boobaa dafay xaw am lu moo tax li may wax mooy képp koo xam ne ñoom yëg nañ ne gëm nañ ne am na lu mu xam am na lu ko yàlla may ci mbir mi nañ ko jël bu mënee dem ñu yóbbu ko mu taxawu leen nam ko mënee su fekkente ne kooku mënuñ àgg ci moom parce que àgg ci ñëpp ñëmën maa ngi leen di ñaan ngir jëmi sidna Muhammad ñu def ngir seen ngir seen réew ñu def ngir seen réew loolu daal laa am lu may wax. A uhum. tout